salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu dañuy sant yàlla bu baax di jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal bu baax Cheikhul Xadim radiallahu anhu wa nafaana barakaati di ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar si borom dool ko fee yàggal lool te man di ak wér di ko ñaanal njabootu sëriñ bi yëpp di ñaanal kilifay lislaam yëpp ak fu ñu mën a nekk di nuyu baax mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di leen ñaanal jàmm ak yiw di leen ndokkeel ci weeru tedd ñu nekk muy weeru gàmm ñu nekk fii tey nag ci albuqaatul mubaaraka di pàkk bi nga xam ne sëriñ bi def na fukki at ak juróom hmm. te gàmmoo fi ba tàyyi gàmm yoo xam ne macha allah sëñ bi wax na ni sax axyaytu mawlidan nabi min asasin wa xaadali fawxal mana fi talsasi nee na mi ngi doole tàmbale gàmm asasin mooy bi mu tàmbalee woote bi rek ci la tàmbalee du woote ndax lu waajur jiitu loolu waajur ma ngi dund tubaab ba daaw li ngal dara bi mu tàmbalee woote bi yoonu murid nag ci la tàmbalee di gàmm nen 1883 nee na waaye waxaadali fooxul ma naa fi talsasin ci talsas mu juróom-ñeent ànd fii ci njaareem ci la amee nag ci la ko yàlla defale ci gàmm loo xam ne moom kawe na jort jumaa ji sëriñ bee ko rëddal boppam ci tànkam ko rëddal boppam ci tànkam mm, tegal boppam xeer wi loola ca keno bi yàlla doon tege xeer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru maamu koor ci atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci leen ñu ngi fi 1330 juróom-benn la atam ci leen taxeere nekkoon na 11 mars 1918. ñaar fan ak juróom-ñaar ci maamu koor maanaam 27 rajab 1346 tolloog 11 mars 1918 ci lañ teg première xeer yi fekkoon na nag gàmm ga ko jiitu la ko rëddoon ñu ne nag xam naa ci wàccaay ne ci wàccaay ba ci bis boobu na nga xam ne mooy bisub altine yor yor bu altine 11 mars 1918 mu teg xeer yi tolloog ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru maamu koor 1336 waa mag ñëpp teew diggante rakkam yu baax yi yëpp mam ceerno ñoom ak rakkam yu baax yooyu yëpp diggante doomam yi waaye diggante taalibam yu mag yëpp ñu gas pax mi sëñ Isaa Jenn wutal ko seel ñu dugg ci biir fe sëñ Muxtaar Binta Lo yoroon ndab li def simon bi indi jox sëñ bi tural bi ngir mu mën a tàmbali jumaa ji daka mu wax bisimilah rahmaani rahim tibb simon bi jàng la maam Ibrahima jàngoon ba muy teg ba muy ba kaaba gi wa is yarfau Ibrahima alqawaida min albayt wa Ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiu alim daal di tifli ci daal di sotti tekki ci xeer bi def ko ba mu ñetti mu gën ne diis tuuti daal di julli ñaari rakka liggéey jumaa ji yëpp nag mu tegoon ko ci loxol sëñ Issa Diène sëñ Issa Diène moom la tegoon liggéey jumaa yëpp ci loxoom mu ànd koog magi taalibe yi rawatina ñeent ñi nga xam ne ay jëwriñ yu mag lañ ci woon sëñ Mor Afsa Lo sëñ Balla Fall Dieng ak sëñ Mandoumbé Mbacke ñooñu ci jëwriñ yi mag yi lañ woon ci ñi nga xam ne àndoon nañu moom liggéey bi waaye sëñ Issa daal moom lañ tegoon ci moom liggéey jumaa ji yëpp mu ànd koog magi taalibe yi nga xam ne ku ci am na liggéey bu mag bu ci fare woon ci dajale addiya yeeg yu mel noonu. ñu liggéey ko xam ne architecte bi ñu daan wax liggéey bi plan itam am na ñu wax ne ñu ko jële Turc Istanbul ñu am na ñu wax ne plan bi fa nga jëlee am na ñu ko wax ñu liggéey jumaa ji ba ama jam sa sin 1924 ci la liggéey bi noppi 1924 xanaa fàttali tuuti ne sëriñ bi jumaa ji ñi ko faye ñi ngi ko ko faye batam bantam yëpp doon samp ca maayomba ñu di ko buddi di sànni parce que ba mu si julli nasaraan bi soldaar di di jaar ci kanamam tax mu xëy dugg ci foore bi la newoon ay bant janaam yu baax ñoo gas samp def ko jàkk ba mu sampee ba defar jàkkaam ba defar moo ca ne commandant bi ñëw li ko def lii ñu ne marabu mu ne fii lislaam du fi am jàkk du am fi dafay buddi jàkk ji tàmbali di buddi ji di sànni amoon na doomu sénégalais doomu senegal bu fa nekkoon doomu nar la woon daan ko wax yëlli sëy liggéey ci ñoom nee nañ secrétaire la woon gisee ne tubaab baa ngi bëgg dina jàkk ji sëriñ bi defar mu ñëw taxaw niko ko fii mu ko def yàqalul kenn dara fii mu nekk la ko def bàyyi ko fu mu def fi jàkk ji mënoo du ko bax lislaam la bëgg def fii te lislaam daf buddi bante yëpp boobu fekkoon na sëriñ bi di taalif xasida boo xam ne mi ngi ko tënkee ci aay bi rabbana axrijna min hazi lxarati zalim ahluha muy xasida nekk raditu an il mawla taala allazi rabba fuaadi wa agnaani wa akrim bii rabba loolu mooy xasida gi baa ngi tolloon ci araf ak laam nga mu rabba la ci soxlaam lu huktub salaatan ma salaamin bi ali wa asaabi wajal bi masjid rahba maa ngi julli ci yonent bi saa salaam di sëlmal ci moom di ñaan sama njàkk si ñuy buddi di sànni suñ borom defal ma ko ay jàkk yu mag ci réew mi da jàkk ci réew mi ci Sénégal fi borom xamal ko ne nangu nañ ko di nga ko gis ci njaareem di nga ko gis ci Touba danañ la ko may ci njaareem danañ la ko may ci Touba kon loolu kii ñaan ko nangu la moo tax bi sëriñ bi eggalee bi jumaa ji noppee sëriñ bi leeral na mag ñi bayit waxoon na waxoon na ko ca maa yomba ñu di ko jàng te duñu xam li muy tekki ndax léeg-léeg da ko def day fekk loo xam ne ngeen jégal bi tubaab yi anticiper mbir loo xam ne amagut te moom bu koy wax day mel ni am na mu nopp ndax wóor na kon dana am sëñ bi daa waxoon ni nafaali xëyrillahu fii maa yomba maasa a xalbi wa alal jamba suñ borom na la woon si maa yomba samay wàll li ko naqare kenn yooyu muy junj ko ndeke li ko naqare mooy jumaa jàkka jooju mu doon samp nii bu dee di sànni loolu moom ku ne xam na sëñ bi ndax li koy naqar mooy li naqar yàlla rek li ko neex mooy li neex yàlla loolu moom naqar na ko wàllam yooyu mu doon juñu nag mooy soror yi bi mu taxee bu jumaa ji ne sàng soror yi taxaw la leen firil bay doo ne leen na ndax xam ngeen la ma waxoon ñu ne déedéet mun la mën a mooy sama jàkka jooju ma doon samp ñu buddi sànni sama wàll yi ma doon wax naa yàlla na ko mooy sama soror yi daal leen joxoñ kon sëñ Fallou jumaa jàngoog door nañ ko 11 mars 1918 bisu altine yor yor ba tolloog ñaar fan ak juróom-ñaar ci maamu koor 1336 fekk tàmbaloon nañ ko ca 1335 ca gàmm ga 1917 ci lañ rëddoon waaye ñu ko teg premier pierre bi nag 1918 bi mu eggee itam sëriñ bi julli na ci sëñ Mat Lamin ci téere bi ma yor di kenn ci ñu àndoon moom te fekkoon liggéey bi nee na julli na ci lu wóor ñaari yoon ñetteel ba ñuy nattala ñaari wóor na leen nee na Korite ak itam. bi sëñ bi jógee boobu tàmbalee gun woon di fi jàll di fi julli ajjuma ak yooyu ginnaaw sëriñ bi ca weer waaw rek ca la sëñ Modou Moussa waxtaan ak ay ay baayam maam ci anu ñoom ak ñooñu ñu taxawal juma. ñu tàmbali jumaa ji jàkkal waaw ah, jumaa jàkkal maanaam jàkkaloo ndax waxtu juróom lañ fi daan julli waaye booba nag lañ ko lañ tàmbali nag jumaa ji tàmbali guñu woon jumaa ji daal maanaam di fi julli ajjuma ginnaaw sëriñ bi lañ tàmbali di fi julli ajjuma ci weeru ci ñaari semaine yi ci topp rek ñaari semaine ci topp rek fàttali na itam nag bi jumaa ji noppee 1924 yëlli mooma nga xam ne moo doon xeexal sëñ bi ca bant ya fekk na ñibbisi na bu yàgg retraite na bu ñibbi ndar 1902 la sëñ bi ñibbisi jumaa ji ñu ko tàmbali 18 xam nga ko diggante bi yàgg na waaye ba mu retraité ba nekk na ret bi jàkka ji noppee suñ borom lépp sëriñ bi day ànd ak seere mu benn bis rek xelam yëpp nekk si sëriñ bi si njaare sëñ Mat Lamine nee na bi yëli ne cëpp bu nuyoon sëñ bi daa fekk tembe jumaa ji noppi bañ def teg caabi ji xam nga doon seera si rek naka mën yow sëñ bi daa yéemu ndax moo ko doon xeexal ci bantam sëñ bi daal jël caabi yi rek jox ma ne ma àndal ak moom ngoon na ma ñëw ubbi fu nañu wër ci kaw mu yéemu lool dellusiwaat ci sëñ bi ne ko nu mu def ak sama bant yi kon moom da doon seere si 1924 sëriñ bi julli ci ginnaaw ba nag ñu taxawal jumaa ji nag am sëñ Modou Moussa waxantaan nag sëñ Arnaud moo njëkk a fi fii juma ajjuma ci loo xam ne sëñ Malamine bind na ko bi ba te fekke woon na ndax bi sëñ bi ñëw fii 1911 daf ñoo te taxawoon na ak moom nekk loxol ndeyjooram nekkoon Aminu Sirte te bind na itam nee na maam Thierno moo njëkk a taxawal fii moo njëkk moo njëkk fi njëkk jiite juma ginnaaw ba nag ñu tànn ba nag sëñ Afia nag continué nag jumaa ji nag yore sëñ Afia moo njëkk nekk nag. imam fii ci njaareem ci ji kee moom ajuma jarag la jiite xëy na ubbital ajuma waaye sëñ Afia nag moo njëkk a nekk imam fii ci njaareem xaw na fee yàgg jiite tuuti ba mu demee ba làqu ñu jox jumaa ji sëñ Mbàkke Kanni Buso yàggutu ay ñett làqu ñu jox sëñ Mate Lamine Diop Dagana ma doon tudd léegi yàgg na fi ba mu fi jógee ci la ñu jox sëñ Mewnu tuuti la ko yore ñu jox sëñ Dame Boussa mu ne fi ba jógee fi ñu jox sëñ Malick Dieng ba mu fi jógee njox jox sëñ Khalifa Lo sëñ Malick jàggu fi. jaar day jaar noonu rek ndax dafa gàntaloon moom itam kii dafa amoon gàtt sëñ Mawlu kii nag moom dafa gàntaloon moom loolu itam muy sëñ sëñ Malick Dieng waaye yor na ko ab diggante tuuti. mu jox sañ Xalifa Lo moom sëñ Mokhtar Binta ma yoroon tërël bi ñuy def premier xel bi yàgg na fi ginnaaw bi ñu joxee sëñ Xalifa Lo mu ne fi ab diir yàgg na fi bu fi jógee yor jumaa ji sëñ yàggut fi noonu ay juróom-benn at bokkoon naa ci ay naayibam ak sëñ bi soxla la sëñ bi soxna topp ci moom ma toppaat ci moom mu jógee fii ñu jox sëñ mat soxna moom sëñ sëñ mat soxna la woon mi toppoon ci moom na fi ñeenti at ñeenti at ñu ngi fi sax dafa màgge rek léegi si nag ñu jox ma liggéey bi ci 2016 bi jàll sëñ Muntaxa ci ndigalal seen Cheikh Mokhtar jox ñu liggéey bi 2016 ak léegi ñu noo fi nekk imam ratib ci gàttal ah noonu daal liggéey bi demee woon ñi fi njëkkoon daan nodd bokk na ca hmm, sëñ Mor Jaxate ko amoon kàddu la booba sax rajo ci kaw la yéeg waaye bu ñu dañ ñëpp danañ ko dégg bokk na ca sëñ Demba Diop sëñ Mokhtar job moom ma ne doon rakk ma Madamel am na waxtu yu mu fi daan nodd ba ni se wàcc seeti sëñ ñoom sëñ Bay Siise ba ci ñi mujj sëñ Moustapha Sarr ñoom ba ñi fi nekk nii sëñ Keba Samb Assane Diagne newoon na fi dafa làqu at yi sëñ Assane Diagne Keba Samb Assane Diagne na at yi waaye sëñ Keba mi ngi fi sëñ Bay Jenn sëñ Basiru Ndiaye ah si tafsir ñun di leen ci jàppale ci gàttal daal noonu la. liggéey bi demee euh, sëriñ bi bi mu ngi mu ngi ñëw Ndiarène 1912 nekkoon fii ca dëkk ba am na taax mu dend ak école régionale foofu la newoon. boo wax nañu février 1913 la ñëw fii bi ñëwee donte amoon na autorisation ci tubaab bi pour dëkk fii tam teewut ñi nga xam ne ñoo ko moomoon ci aada wàccoon na ñoom ndax fii pàkk bii tey ñu ngi ko sëñ baa ngi ci ñi nga xam ne ñoo ko moomoon ci aada 200 francs français. moo la ko jëndee woon. waaw fii. ñi nga xam ne ñoo ko moom itam joxoon na leen ay xaalis yu bare bare bare bare ay même xaalis yi ñu takkat lépp daal ngir bëgg rek donte amoon na sax autorisation ci nasaraan bi pour pour na fi te booba ñoom ñoo fi ne waaye teewul ñi ko moomoon moom jox na leen fii itam wax nañu tookar bu ñaam fi nekkoon sëñ bi daan jógee léeg-léeg ci dëkk ba buy doxante di ñëw ba fii defoon fi mbaaram di fi yendu léeg-léeg di fi nekk boo fi tubaab bi rombee wax ne neel wax yële ne ko neel sëriñ bi na dindi mbaar mi bi ñëwee ci sëriñ bi nuyu ko toog jàmmante du ko mën a wax dara jàmmante moom neex ko rek mu dem bu demee ba saa mu ñëwaat ba ba tubaab bi rombatu fi ne yëlli waxoon naa la si marab bi nekku na dindi mbaar mi yëlli ñëwaat fi nuyu sëñ bi jàmmante waxtaan dem mënu ko koo wax ba ci ñetteel bi tubaab bi ne ko waxoon naa ko na ko dindi ba mu ñëwaatee nag ci ñetteel yoon yaa man toog waxul dara sëñ bi ne ko yële lu mu doon lu xew <laughs> mu doo ko koo wax ne ko danaa ko dindi waaye dinaa fi def loxo ne boole kenn ko dindi loola xam nga baatin la tey mooy jumaa ji ñooñu dem nañ sëñ bi def na ji ilaa yoomi din jumaa ji dafa nekk kon ci gàttal loolu euh, soror yi ñeenti soror moo fi nekk xam nañ ñaar yu mag ak ñaar ñaar yu diggu doom ah. ak kubba bu mag bi laajoon nga itam ndax am na coppat yu ci am am na amoon na coppat ndax lii war xubba bi nii ay tiwel fi nekkoon dañ koo defoon tiwel bañ demee ba ay jamono tiwel di daanoo ko yu mel noonu ci lañ ko dindi tiwel def ko terrasse waaye coppat yeneen yu mag moom daanaka yu rëy dëgg-dëgg daanaka yooyu la mu nekkoon tiwel ñu dindi ko def ko mu nekk terrasse yeneen coppite ji des xëy na mooy ni ñu ko carrelé yu mel noon peinture la woon ak marbre bi ñu def ci suuf suuf geeg yu mel noonu waaye bu du lool amaat tojaat lu dara di fi soppi yooyu mu amu fi maanaam jëmm ji daal ni mu mel ni moom noonu la ko sëñ bi bàyyi woon ndax tiwili bi ñu ko dindee ne meloon rek lañ ko defaat tiwili la ñu def ci def ci terrasse. so architecture soppiwuñ ci dara. maa ngi am benn bis ma génn fi Guèye dasanteeg benn tubaab mu ànd ku koy ku koy tekki ndax déggu sax wolof mu ne ko imam baa ngi ne man ma yaa imam man waaw mu ne damaa bëggoon tabax bi ngeen mën cee soppee dara ah yilif ma ko de waaye yaakaar ma ko de mu ne buñ ci soppee dara aar bi day yàqu <laughs> waxtu bi ngeen nii yilif ma ko nag mu ne nañ ko ko wax yilif moom mu dem ci booba sëñ Saliou mu ne ko ah, mooy yilif barab bi moom daan na dem ci ñi ko yilif wax leen ne daal buñ ci soppi dara dañ ko bàyyi ni ndax dafa aarate buñ ci soppee dara aar bi day yàqu loolu benn tubaab boo xam ne déggu sax wolof moom moom ko fi benn génne. waaw bu bu fi jullee moom barab bi daa mel waaw barab moom ay yaatu na ay junne lay jël nag ndax man naa war na mën jël lu toll ci ñetti junne bu ko ëppoon yaatu na daal wax dëgg yàlla. ajuma ji itam ni ñu ko laajoon sànq xutba yi ak yooyu. xutba moom jëwaam day soppi ko donte Tuubaa danañ bokkale lu bare bari léeg-léeg xëy na waaye li gën a bari ci jumaa mën nañ mën nañ ko mën nañ ko bokkale ndax jumaa moom weesut waxtu na lu xew nga fii moom noonu la ñuy doxale xew-xew yëpp di gën a bari dañ ci def ay xutba nekkee ci gàmm ñu wax ci gàmm yonent bi saa salaam ak yu mel noonu xaaju bi paase rek comme benn ajuma la ñu am ci weer yi ci feeg ñuy gàmm ci lañ ko def bu dul loolu itam tabaski ñëw nga def ko boo xam ne tabaski mi lay jëm koor yi ñëw nga jëf ci jëm ci muuri koor yeeg yu mel noonu koor gi ñëw nga wax ci mbirum koor geeg yu mel noonu noonu daal xutba yi fii noonu lay doxe maanaam yii xew dañ ciy def ay xutba di ko jottali nit balaa ñuy xutba itam loolu ñuy def noonu day am ñu sant ñu def bayaan wax ci loola bu ñu noppee nag jaar ci ci làkku sax hmm, imaam bi moom arab rek lay wax waaye am na ñeneen nag ñoo xam ne ñoom ñoo ko def bayaan laataa ñuy def xutba bi jëmmi tabax bii moom am dañ ko xoolee da man gisuma ci benn feer woon xeer yu xonk yooyu ànd ak xeer yu weex yooyu mel ne xeer raay moom gis naa ko ci xam naa bu dul terrasse bee ñu fi defaat moom laa xam ne moom la ñu soppat defoon ko defoon ko tiir ñu def ko kii bu dul loolu ma xam li des moom amul ay feer gisuma ko ci ndax am na jamono bi ñu koy defaraat xolli woon nañ ko bëgg xolli li ñu ko raaxee rëpp waaye benn ciment buñ ko leen benn fer buñ ko leen man gisuma ko ci ba ci soro yëpp ay xeer yu xonq laa ci gis ak xeeru raay yooyu mel ni xeeru raay te weex yu ndaw xeer xeer yu xonq yu ñett ak mool xeeru yooyu ñett moom yu ndaw moom lañ teg naa ci ba bët te booba nañ ko lépp ba nga mën a jaakaaroo jëmmi jëmmi jëmmi mool yaak yëpp mu nekk mooli ay xeer yu xonq yu ñett ak mooli xeer yu weex yu mel ni xeeru raay te ñett ko gisuma ci ay kii bëri waxtaan ak nit ñi ci li nga xam ne moom la loolu am na mbokk mi ngi seen Modou Niang moom lañ moo fi ne di taxaw lépp lu aju ci barab bi. am na itam benn daayira boo xam ne moo sosoo moom di fi ñëw alxames bu nekk di ko seetal bañ ne suba la aju ñu seetal ko raxas ko ko seet wicc waaye bu dee ci biir nag moom sëñ Modou Niang mi ngeen gis ni toujours moo fi nekk. di ko taxaw moom it waa Njenne ñoo ko fi teg ndax waa Njenne ñoo itam ñoo ko ñoo yoroon liggéey bi bi mu noppee ñoo continuer di ko ñoo fi teg ci jamono yi yëpp koo xam ne moo fi nekk di taxaw barab bi ci mën noonu taxaw lépp jëm ci barab bi ah ak ak ak seet geeg yu mel noonu am na nag daayira bi ne fii di la ñëw di di ci jàpp ci seet geeg yu mel noonu ak defar am nañ yu ñuy euh, pompe yu ñuy yoo xam ne mën naa espérer suuf si waaw dindi poussière rek yëpp am na fi daal am daayira boo xam ne dañoo di raxar kar yeeg yu mel noonu itam am na xanaa cant ak ngërëm cant taxawaay bu rafet bi nga xam waxtu ne yéen koy taxaw waxtu ne ci gàmm gi dañ koy dundale fii te loolu nekk am solo ndax gàmmu njaare moom ku ne dégg na ko tey màggal Tuuba gàmmu njaare ñaan yàlla bis bi ni seen ñu egg ci jàmm ah ba weesu ko te lépp luñ ci seen yàlla defal na ko